وجعل كلامي راسدا ومرسدا وفكرتي نوير وقلبي بي ارسدا بوكي ني باي خل فما نيك تي ادنا بي مو خام ني نيك تي ريو مي ولا ني نيك بتيم ريو تاي باي خل سين سين بام سولو بي مي لا غران سيكرا ولوف نيوغي لين واخاتي السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته bokki ginaaw bi ñu santate yàlla julli ci yonent bi salallahu alayhi wa sallam ñi ngi jaajëfal mboole mbokk yi ni bàyyi xalak ful mën ne mbokk yi tey ñu fas yéene ànd ak yéen ci benn secret bu ama am solo muy secret nopp di secret nopp bu gàtt waaye di secret nopp bu wér a wér a wér di secret nopp bu kiimaane lool di secret na boo xam ne ñaar ñoo xam ne dañuy sëy te jafe-jafe bari ci seen diggante incha allahu rabbi buñ ko defee diggante ba dina dañ ci lu gaaw diggante ba dina defaru ci lu gaaw bu dee famille boo xam ne tamit dañu am ay jafe-jafe lu bari ñoom it buñ ko defee suñu borom dina leen suturaal bu baax bu dee ñaar ñoo xam ne dañuy ànd ngir bëgg sëy waaye jafe-jafe bari na tamit même buñ ko defee suñu borom dina defar diggante boobu ci lu gaaw bala ñuy gëna yaatal ci secret bi ñu wax la yow mi gan ci pass bi tay doo ko topp suñuy vidéo bo abonné ko nga abonné yow mi bëgg def lu seet wala nga bëgg def lu xaar man nga ñu contacter ci ben ci ñett numéro yi muy 77 684 28 28 wala 77 668 28 28 mo day da nga nek Gambia ak liko war nga joko ñun ci 220 238 1629 238 1629 ñetti numéro yépp ay numéro yu whatsapp lañ mbokk yi faral di tuwa garabi yi kàttan yi tamit ñu ngi leen di xamal ne garab yi disponible na jamono ji ñu wax ak yéen képp ku si tuwa rek mën nga ñu contacter mbokk yi dañuy dikk ak yéen ci sekkere nobbi waaye nak maa ngi digal képp koo xam ne da ngay faral di def sekkere nob boo gis essayer ko ci nit ngir ay caaxaan maa ngi di digal nga bàyyi ndax loolu de conséquences yi xaw na bari dafay waral feebar bopp yi te wér dafay waral ak tëju dafay waral tamit gàtt fan boo tax képp koo ko daan def rek bàyyi ko nopp képp koo xam ne da nga koy def dee ko def comme nga am soxna te seen diggante bari jafe-jafe nga di ko def ngir jafe-jafe yi dañ wala famille boo xam ne dafa bari ñoo xam ne déggoon ci biir famille nga bëgg ak déggoo am. wala ñaan ñoo xamne dañuy bëgg sey waye nak waxtaan nañ ba déggoo ay jafe-jafe am yi daal képp ko koy def baax na waaye yu dul yii képp ko ko daan def maa ngi lay conseillé nga bàyyi ko ndax du lu baax mbokk yi secret bi neen indil tey mooy bii wasayanaha lin nasirin muy ñaari baat waaye di ñaari baat yu ama am solo képp koo xam ne bind ko ko te binde ko nii ñu ko wa sayyanaahaa lin-naashri nga bind ko juróom-ñaari yoon maanaam shin gi moom nga yaatal nii nga ko gisee ñu defee ko ko nga yaatal ko ba mu yaatu comme nii nga jël turu ña nga bëgg juboole nga def ci biir juróom-ñaari yoon yëpp nag benn bu si nekk da nga koy yaatal nga jël kooku turam def ci jël turu yaayam def ci jël turu ka keneen ka si def def ci jël turu yaayam def ci jël xadadu nafsi muy cinq mille nga def ci soo paree nga fexe ba wut lem nga sotti ko ci téere bi ci digg bi ba pare nga lem téere bi nag wut ko nga kal ko nga kol ko boo ko wut benn bitéeli weer nga def ko ci def ci meew moo xam ne dafay way nga def ko ci téere bi fexe ba suul ko fuy tooy lii da mbokk yi ñëpp képp koo xam ne dafa dëngu ak moroomam nga def ko ngir juboole incha allahu rabbi boo ko defee suñu borom dina ci defal ndam ginnaaw loolu ñu def fàttali bu gàtt ci njariñul garab gii di garabi kàttan gii di musaam garab gi dafay yokk kàttan garab gi dafay yokk maniyu garab gi dafay dundal wala njaan muy garab goo xam ne goo am am solo képp ku seetewoo rek mën nga jokkoo ñun ci numéro yi insha allah rabbi am naa kon mbokk yi lii dañ amul yéene tey partage ko ak yéen ba ëllëg ñu dikkaat ak yéen ci beneen wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu jërë ngeen jëf